kon bu ko defee ñu dugg ci laaj yi rek comme niñ ko daan defe kii day laaj julli baxda salaam ak xabda salaam nu mu ko koy teqalee pour mu leer ci boppam salaamaaleykum waaw ci laaj boobu mbokk mi laaj mu dañu dafa bëggoon ñu teqaleel ko julli xabla salaam ak baada salaam xëy na jamu wala nuñ koy teqarlee nit ki bu fekkee ne day julli ci tënk rek julli gi lum ca mànkil rek cee mu doon ab sunna lum ca mànkil cee mu doon ab sunna dañ koy sujjootal xabla salaam waaye tamit lum ca dolli ci ëpp lu ëpp rakka rakka yi mu war a julli loolu lañuy ñuy sujootal baada salaam kon bu fekkee na julli gi danga cee wàññi bala ngaa sëlmal ca li nga ci wàññi ab sunna la bala ngaa sëlmal nga koy sujootal bu fekkee ne danga caa yokk ca lañ ci yokk ab sunna la ca yokk nga ëpp ràkk yi nga waroon a julli su boobaa boo sëlmalee nga koy sujootal kon loolu mooy ci teqale bu gaaw bi ci tënk ko rek noonu lañ koy jàppee jërëjëf Ndiaye kii day laaj tam jigéen bu dee julli dafa war a ràcc ay tànkam wala da ko war a kebele waaw jigéen bu dee julli ci hadis bi ci yonante bi sallallahu alayhi ak ma sew masawu imaamu Malik bii ñu nekk amu ci ixtilaaf amu ci wuute day keppale ay tànkam sopp nañ ko ci moom bu fekkee ne góor nag lañu may wala lañu sopp ci moom moo ubbi ay tànkam waaye bu dee jigéen li ñu sopp ci moom moo muy kebale ay tànkam wasalaam kii moom day laaj asalaamaaleykum ji maanaam nu mu koy taxawee ma julli gi daal asalaamaaleykum ji day fekk taay bi wala moom da ko da ko desee leer daal. julli moom bala ngaa wax asalaamaaleykum taay ji day jee ba pare ndax asalaamaaleykum moo lay yiwee ci julli moo lay wanal ne julli gi yow pare nga ci kon su taay jee moom nga war a wax boo taayee ba taay ji jee bu fekkee ne kii taay xam na taay wala mu man ko. saa bu ba taay ji jee rek ci lay wax asalaamaaleykum mooy loolu mooy yiweeku ci bii ak julli feeg defagoo ko rek yow julli gi moom génnagoo ci wasalaam. kii day laaj moom julli suba gi ak fajar ji ñaari yooyu bu ko rawee nan la koy jullee moom. bu fekkee ne julleeg farata ci boppam mooy salaatul fajri yonent bi sallallahu alayhi wa nee na. moo gën ci àdduna ak li ci biir àdduna bu fekkee ne da koo raw moom fi nga ko mayee ngir mu fay ko li dale ci buñ ko doon tënk ci waxtu yii man nga ne man nga koo jàpp 9h ba jëm 9h30 su ñu demee ba jéggi 11h jëm goo ko julli moom fay ko moom fàtt na waaye julleeg farata gi moom amut waxtu saabu bu yeewoo rek moom da ko da ko daal di julli ci saana incha allah. kii moom dane mu dem si ay jàng wala mu dem si wàcce kaamil di saraxe ba ab saraxam jeex muy sar araam na waaw walla déet waaw loolu de xam naa ne xañ na jëmmi kii sar moom wala joxe na ba lim joxe jee sar xolle ja xaj na moo xam lan la dikke ci moom bu fekkee nag moom xañ na bëgg am neexal rek moo tax mu def ko moom loolu moom lu ñu cible ci ñuy jàng alxuraan walla lu mel xasida yi bu fekkee ne nag moom àll ji ko diggal joo xam ne ni moom bi mu koy diggal teyu ko moom loola moom dara ko ci topp xaj na it ne am na ci tuyaaba waaye daal en tout cas moom dara du ko ci topp moom bu fekkee nag da koo def ci maa tey moom am fo lañ ko jàppe ci am fa mu nekk moom man borom mën na koo jural ay bàkkaar wasalaam kii moom dane bu fekkee ne day sangoo ci ab salle de sangu farata ba pare sol ay yéreem bu génnee day jàpp walla day continuer jullim waaw nit ki moom mën naa sangu sangool farata yéene waale ci biir sangool farata ja ndax xam nga ne sangool farata boo gisee ñu ciy dugal njàppum benn benn rek dañuy wax ne dañuy mut nit ki mën naa mutile waale dugalaale comme ku doon jàpp ndax sangu ci sangu farata mën nañ koo def mu baax ca doo ko defee comme niñ ko defee benn benn ndax bu nee nangam ndax farata la rek dañuy xool ba xam lan la bu nee sunna dañuy xool ba xam lan la bu dee lu ñu sopp la dañuy xool ba xam lan la bu fekkee ne xool lan mu génn farata rek wala mu génn sunnatul muakkada maanaam muy sunna bu ñu feddali boo ko defee mën na koo baaxal boo ko defut mën na koo baaxal waaye nit ki daal bu fekkee na day sangu farata ci yéene waale ca dugalam njàpp su génnee ca fan fa sangoo bu fexee ba. xam na ne laabu laalu dara loo xam ne ni sobe la ci biir sangukaay boobu mu ko doon defee su ko deful rek wala lenn loo xam ne jàpp nañ ne mën naa toj am jàpp kii ñu wax ne day tojum jàpp ci fekk ne bi muy dugg di jàpp waale di sangu farata yéene waale dana jàpp lu lépp lu tojom njàpp bu ko deful rek bu génnee mën naa dem julli dem euh, mën naa génne foofu rek dem julli su ko neexee nag moom bu génnee ci sangu bi moom mën naa dem tamit jàpp soo ko julliwaat lu ci def rek baax na waaye tamit na fekk moom ba muy dugg ngir sangu ji mu yéene waaye tamit am njàpp wasalaam kii moom dafay wax ne bu nit ñi dee teg ci moom lu ñaaw di ko tuumaal te ka ko tuumaal baaluku ko moom moom moom ko tuumaal baaluku ko lan mooy ab atem waaw loolu moom ne ko Sëriñ Tuubaa waxee ci Jawhar Nafiir rek képp ku tuumaal doomu aadama moom bu ëllëg yowmal xiyaamee dana jël la nga am yow mi ko tuumaal ci lu baax jox ko jël ka nga tuumaal li mu am ci lu bon jox la loolu rek mooy àtte bi képp daal bépp nit bu tuumaal as gor ci tuuma la tuuma joojee am na sax tuuma ju doon nga teg ko ci ab deram bu boobaa lislaam dañuy santaane ñu caw la ay yar su fekkee nag tuuma joo xam ne àggu ci dara ju jooju nag boo ëllëg yow man xiyaamee suñu borom teg ko teg la rek jëlam lu bon jël lu bonam jox la moom li mu amoon ci lu baaxit it jël ko jox ko rek mujjee wasalaam. waaw kii moom dafay wax ne. Euh, ki nga xam ne baykat bi nga xam ne dafa bay ba pare war a génne asaka ak lu mu koy génnee ak si lan la koy génne maanaam fu muy war a toll moom si asakaam ba mën koo génne. waaw léegi defal nañ ci daaw ay waxtaan sax di jéem a leeral nit ñi fi ñuy toll ci mbirum asaka ba bi ñu waxee ni daye bi war a toll ñu bari dañ doon ñëw doon laaj siwaat ne waa léegi sax mënuñoo tollal loolu lu ñuy suñuy àtte wala ndax asaka ji ñuy joxe asaka la loolu moom bu fekkee ne ci fuqaawul maalik yi moom jooju moom duñ ko tuddee asaka waaye ab sarax nag lañ koy tuddee ndax li ëpp ci li ñu war a génne asaka man nga ne baykat yi niñ ko doon misaal ñi ci ëpp seen dayo du àgg foofa waaye nag comme nañ ko waxee woon ci waxtaan woowu rek nit ki li mu war a tollool lam ca génne tamit lu lu mbay ma toll rek bu boobaa tamit na na xam ne na ci sàkk lam ca mën a génne mu génne ko jox ko tamit ña nga xam ne jàpp na ne ñoom ñoo ko yeyoo ndax mbay mi daanaka xawut a bokk ak li ngay liggéey ci alal ji ndax foofu day am ak wuute trop xam naa ne faaw doon na gën a leer ci masala moom mu gën a xool bu baax a baax a baax a baax waaye nag nañ jàpp ne daal bu fekkee ne nisaab ji ñu sàkkoon ci dayo bi wax ne ni la sa mbay war a toll ngir nga génne asaka su suñu tollul noonu rek lañ cee def moom sariya moom da koy jàppee ab sarax rek wasalaam. bi si mujj moom kii day laaj ne kees yi nga xam ne moom la ñuy def ñu koy tuddee baaxuma intérêt yi ñu ciy teg dagan na wala daganul. loolu moom bu fekkee ne intérêt joo xam ne da nga fay joxe fukki dërëm wala lay jox ñaari fukk boo ñëwaat andiwaat fukk ak ñaar loola moom dafa araam ab jullit du lekk intérêt joo xam dañ ko cay tegal andi kaay ma jox la ñaar fukk su ma paree booy ñëw nga andil ma fukk ak juróom wala nga andil ma ñaar fukk ak juróom juróomi ca teg loola moom lu araam la loola lislaam bëgg ko wasalaam